aousubillahi mi seytaan rajimi bisimilahi rahmaani rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci yonantaam ba seydina muhammad salallahu alayhi wa faay mën a nekk ñoo leen di jaar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér-géram xéwal gu yaatu deful àdduna ak àlaxira rawatina yéen ñi fii ci daaru salaam si faaw tey dañ indi secret basmala secret basmala bi nag du gudd bisimilah rahmaani rahiim nag mooy loo xamante ne nii lépp a ngi ci biir bisimilah rahmaani rahiim yi jiitu na fi yonent bi salaahu salaam ndax yonent yàlla noox amal na ko wa innahu bisimilahi mujreha wa murseha inna rabbi la xafur rahim loolu yonent yàlla nooxin moo ko waxoon ba muy dawal gaalam ga am na yonent yàlla Suleymaan wa innahu min Suleymaan wa innahu bisimilah rahmaani rahiim yi kon bisimilah rahmaani rahiim lu fi yàgg la bisimilah rahmaani rahiim nag. mu ñëwaat ñu jox ko yonent bi lépp mu mat lépp mu mat muy bismillaahi rahmaani rahiim yi borom xam yu bari nee nañ moo ismulaayil asam mi ngi mel ni li dox ci diggante bët lu weex la ak lu ñuul li nee na loolu moo tax diggante basmal ak ismulaayil asam am na ñu ne sax bismillaahi rahmaani rahiim mooy ismulaayil asam waaye daal képp ku saxal dimanche boo jullee suba ba pare nga def bisimilahi rahmaani rahim yi ñetti téeméer 300 nga teg ci salaatu ala nabi gooman ci kàrtu suñu borom tabaaraka wa taala kenn du la yërëm ubbeeku tamit da nga ko def bala ngaa génn àdduna bi da nga am xéwal yu bëree bari boole ko day defar sa àllaaxira kon bisimilahi rahmaani rahim képp ku ko saxal dimanche boo jullee suba ba pare nga def ko ñetti téeméer muy 300 boo pare nga teg ci salaatu ala nabi gooman téeméer 100. loolu mag ñëpp ko saxal rawatina sëñ Tuubaa nee na de kenn du la gis di la yërëm ubbeeku tamit danga ko sa tamit dund gi dana baax sa njaboot tamit dana la aar aar sa njaboot nga ñaan ci lépp li nga bëgg bisimilah rahmaani rahim kon 300 mooy ñetti téeméer te yomb na boo jullee suba ak dimanche dimanche rek nga koy def nag balaa jant bay fenk fi jant biy fenk boo jullee suba pare rek. nga def ko boo pare nga tëj ko salaatu ala nabi ñetti téeméer ku ko saxal de ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala da nga gis ay changement yu am solo ci yow te dund bi léegi dafa adduna bi dafa jaxasoo te nit ñi ñu bari nañu sonn kon loolu xéwal la ku ñëw bisimilah maa mën na lu ne 787 yi ku ko saxal tamit di ko liggéey da nga gis xéwal da nga defar sa adduna da nga defar sa àllaaxira 787 bas ma lay boo ko liggéey ne ngay jiital 7 bu dee 787 yi andi 70. andi indi indi 80 muy 787 yi 7 yi nga jiital lim bi gën a ndaw nga jiital ba bare nga tey ci 80 yi nga indiwaat 700 yi koo ko saxal moom it di ko def saa boo julee suba ba pare ak boo julee gee ba pare moom it xiiwal da nga ko am incha allah rabbi kon ñëw leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku jéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu